mais dama ne la gis nga guy gi na xool nu muy déglu naa ko nag si benn lii ah, comment dire lool sax dinaa ko leeral pour àdduna xam déglu naa ko si kii mu ne ma man maa ne bu doonee guy gi man na ma kaa bu doonee saakees 15 millions laa koy préparé bu doonee comment dire bu doonee guy gi 5 million foofu xam nga nu mu demee rôle boobu laa lay expliquer tey nga xam loolu boobu xam nga nu mu demee nest pas bi may wax seex yaa ngi woon fii toog audio bi audio la ci seen YouTube laay waxee ñëpp kay koy adduna ñëpp a seetaan audio la comme li ma la wax rek sportif warta gaaw a gis boppam warta gaaw a mer audio laa lay wax ma guy euh, day dégganteeg seex n'est-ce day dégganteeg man audio bi si moom laa ko dama ko lii nu mu tuddati. vocal laa ko def vocal. kan nga vocal buuse. buuse laa vocal si boppam. ndax buuse kaay ma wax la nag buuse mooy ban saaru nit buuse nit ku baax la ku bëgg géejawaay moo nekk noonu. a damay dégganteeg moom te day ñaan yàlla suñu borom yàlla na guy gi daan ma moom day ñaan loolu. wallaay lazim billaay wallaay taala sama bàmmeel laa toog. te pourtant damay déggante ak moom. pourtant ñu ngi koy jiñ lu ne. waaw ñu ngi koy lu ne moom laa expliqué nii. barki salaatil fatiha chaque jour bu ne ma eh, chaque jour saa bu déggante ma eh man faralu ma la guy gi laay ñaan yàlla na ko yàlla suñu borom may ndam. kon kooku di wax loolu bëgg na waay bëgg na gosam moom buuse. buuse kenn la ci géejawaay. is xamal ma la expliqué. kon liñ koy waxal yëpp. wallaay man bu ko defoon dama naan la eh moo ko def. wallaay laazim man du ma ëllëg bu ma deewee. sama lo voilà rek dinaa ñëw si audio bi loolu jarul yàkkamti bu ma deewee ëllëg ma deewee ëllëg man du ma du ma naafeq du ma waxal nit ki lu mu deful wala may aggraver leneen non li nga ma wan rek laay laay xam yaa may dégg bi may déggante moom day ñaan naan yàlla la guy gi naan te si dëggam la ne dama ko koy moo tax ma ne sportif warta gaaw a gis boppam warta gaaw mer bi ma audio audio bi dama audio audio bi non dama audio di waxtaan noonu après moom moo euh, bu ma juumalee kii. Boucher non non keneen ki ku. Euh, Abdou Diouf jël vocal ne ma yow guy gi bu la jàppee dina la duma dina la daan ma ne ko kooku ragal la du jël sama avance. boobu lekkagul non non boobu taxawagul. Mm-hmm. léegi mën na ni seex toog ni mën na ko seex ba xam nga combat bi day taxaw mu ne ma ma ne ko ndax gan gi. Mhm. daa gaaw a siisu daa gaaw a gis boppam. rek ma téye vocal bi vocal une minute di teg la. mais loo ci wax. li ma si wax kay defal nank dina ñëw. Ah, bul si loolu. gis nga audio bi bi ma waxee ma ne man maa wax loolu si audio bi. Mhm. boobu combat bi taxawgul mooy maanaam mooy meb bi rek. Mhm. meb bi dama koy yor nank ma wax audio bi ne ni euh, gis ngeen euh, maanaam guy gi. ma tagg ko foofu mën naa bëree macha allah nangam nangam tagg ko moom lu mu mane. ma gis nga après bi ma paree si audio bi mu ma ne ka nag man maa ko man maa ko ëpp doole maa ko dàq bëre. ëpp gàllaaj non teel rek maa ngi ñëw teel rek. maa ko ëpp ga non non gàllaaj waxuma ko gàllaaj dama ne ko foofu bu amulee sa maa ko fa ëpp. ndax ma ko maa ko ëpp gàllaaj yàlla suñu borom rek kaa xam ko am gàllaaj. isa ma ma lu expliqué ma tàgg nekk yow sa tànk yi baaxul. maa ko waxoon loolu ndax lépp. bëgg combat ndax boo xoolee sama combat ak saakees noonu noonu foobeel saakees nangu la bëre man kon il faut man man ma xam naa ne moom si su man la day jël combat bi. mais man audio booboo tax na tey nag combat bi taxaw. waaw dëgg la léegi man te pourtant te pourtant te pourtant Ketchup lu combat bi taxaw moom. lu nekk la ci dégg lu nekk la ci dégg. te pourtant moom moo siisu jël combat bi. noonu la demee nag damay leeral rek pour mu leer. waaw li nga leeral voilà mais man li ma jaaxal da ngay par des fois nga jàpp jën boo xam ne yow soo mooy yow génn gaal gi ba ko fa. non non non loolu mënta ne. ay siik non ay doon siik ndax xamul tax. guy gi champion la ndaanaan la mën naa bëre lépp nangul nàkk mais na ma nangul xam ne maa naq maa gën a naqaree bëreel si mbëri ndax looy bëgg def looy bëgg def si kaw si bëre laa loo si bëgg def. sa tànka wee fu mu jógee dinaa xam yow loo bëgg a def yow jaar nga si équipe jaar nga équipe nationale n'est-ce pas bu ma juumalee. voilà man loo bëgg a def si làmb xam naa ko. bu ma toogee di seetaan mbër laa la wax. bu jàppee dama naan kay kele bi lay def te loolu lay def. kon loolu boo mënta bëre doo ko xam. guy gi mënta def dara si bëre ba jaaxal ma. yow xam nga ni sax laasana yow maa tax bëre guy gi yow xool loolu xam nga ko. ah. non xam nga ka. noo ko dàqee bëree. non bokkuñu. suñuy suñuy bëree. Mm-hmm. ñoo bokkul daanu ma kum daanul. yow xam nga lu ma la expliqué moom daanu maanaam moom daan na ñoo xam ne man daanu ma leen. Mm-hmm. mais bëri yee bokkul man lu may def day wóor. dégg naa déglu ndax Sénégal tuddee roi di. Sénégal Sénégal Sénégal nu ma la ko mën a expliquer gis nga Sénégal noo wax ba nekk fi dangay liggéey ba nekk fi rek. yaa may dégg noonu la demee mais guy gi mënumaa dàq bëri si àdduna yéen ñii journaliste yéen ñëpp xam ngeen ko guy gi mënumaa ëpp doole non nañu waxtaan te sérieusement guy gi mënumaa ëpp doole dañuy waxtaan légèrement guy gi mënumaa ëpp doole mënumaa dàq bëri loolu ku yow boo tëddoon ba guddi buur ñu wax la ko guy gi mën na maa ëpp doole mën na maa dàq bëri doo ko gëm non doo ko gëm doog dàq xeex. waaye xeex yow guy xeex guy gi kan la fi dóor mu daanu. mbalaaw mbalaaw la fi def. no mbalaaw la loolu du du kuu bu dal la. mbalaaw xam naa li may kii xam na ka sànni bu waaw mu mu mbëkk ka non jos moo mbëkk kuu ba daanu loolu dañ ko koy nangul moom moo ko def mais dama ne la dóoroogu fi technique boo xam ne lii xeex la xeex bu jaar yoon te garde bi normal dox si kaw defagu ko nañu waxante dëgg nii rek lay def nii nii. yow mos ngaa def man. xoolal samay komba bu may xeex man ak Brise de bi may xeex ak moom gis nga li ma ko def dóoruma ay combat maanaam ay lii man bu may xeex damay xam lu may xeex lii nii laay xeexee te dina damay faral di dégg ci benn euh, suñu benn kilifa ndeysaan dañuy faral di ñu wax benn baat da naan du wax dina euh, du ñu lii nu mu tuddati du ñu wax ku xeex. ku daan la ñuy wax mm-hmm. man dama lay dóor daan la. Mm-hmm. wala yow ma moytu sab ku daan la.